yafqahu xawli sëriñ bi sëriñ Alaaji Fàllu maa ngi yëkkati nuyoo yi gën a tedd di nuyoo lislaam man ak délégation bi bawoo fa président de la république son excellence Macky Sall ñu ràññee ci le ministre de l'eau et de l'assainissement muy Serigne bay Thiam mi ngi dend ak suñu naataango ministre fonction publique Gallo Ba mu dend ak ministre du commerce porte-parole du gouvernement Abdou Karim Fofana waaye ñi ngi ànd tamit ak le ministre de la culture di Alioune Sow bi ñu ñëwee fekk nañ fi mu dalal ñu ci région bi le gouverneur Ousmane Kane teewal fii président teewal fi premier ministre Amadou Ba waaye tamit teewal fii mbooleem membre gouvernement bi fekk nañ fi préfet département bi ak sous préfet yi Serigne Ablaye lim yëpp fekk nañ fi tamit président conseil départemental bi député yi au conseil yi ak maire yi ñun ñëpp bawoo fa président de la république son excellence Macky Sall ñu ngi lay wax di la ñaan nga jottil ñu ko sëriñ Muntaxa yal na yàlla yokk wéram te gën ko fee yàggal ñu ngi teg ci sa loxo nuyoog lislaam bu sell boobu di wax asalaamualeykum wa rahmatullah wa wa barakatuhu ñëw nañ ci bis bi ci ndigalu son excellence monsieur le président de la république Macky Sall indi ziaram waaye tamit indi ndokkeelam ci bis bi muy ñaan sëriñ bi mu jotlil ko ko mboolem taalibe yi waaye mbooleem jullit yi nga xamante ni ñoo nekk ci senegal ak ci àdduna bi tey nag bis bi tax ñu ñëw fii da di bis boo xamante ni dañ koo jagleel soxna su sell te màgg muy soxna maam Mariama Bousso Jaariyatullah sa waajur wu baax wa di Serigne Cheikh Mouhamadul Bachir jàngal nañu ci lu bari leeral nañu lan moo doon ay jikkoom wax nañu ni jàngalekat la woon jaamukatu yàlla la woon waaye ku mënoon taxawu ndongo yi ci daara ji la woon moo tax bi mu wujjee sunu boroom tiis dab na daara ji ba ñu bari ci ñoom waxuma jooy yañ ca jooy waaye marché yañ ca def ba tey ñi ngi koy fàttaliku kon kooku mooy soxna Mariama Bousso suñu maam jaaratullah mi dëkkaale ak boroomam ba damay toog sànq di xool jànkati xasida yi ma gis sëriñ Ibra Thioune mel ni dafa bokkoon ci mbooloom ab lay Ñang di jànkatu murit bu mag ñuy fàttaliku li mu defoon muy hommage bu mag bu mu jagleeloon suñu maam Mariama bu sa jaariyatullah di ci fàttali lan moo war a doon ay jikko yi nga xamante ni moom la jullit war a lamboo te ci way woowu am na bayit yu neex yu ci nekk mu mel ni Baye Ablaye Ñang da daan faral di fàttali naan ab jullit la muy jëf yéene waral këruk mel ni Baye Ablaye Niang fàttali ni ab jullit la muy jëf yéene waral këruk nguuram yéefarit la muy jëf yéene moo waral kërug dóoram mu ni kon jullit war nay jëf te boole kook yéene te jaaraa jëf boole kook yéene loolooy mbir ma lii nag li muy wane di ko firnde mooy bis bu mel ni bu ko suñu maam soxna jaara mënee am jëf ja ak yéene ja moo ko waral mu teg ca ni Mam Moor Jaara mooy ab liggéeyam yéene jaay Bamba kook kon ba tey yéene ji ak jëf ji dikkat na sëñ Basiiru nag dañ koo amal njukkal ndax olof dafay wax ni bu lëg lekkee alom na ko gërëmee coy bu ñu mënee dajaloo fii tey ci Poroxaan dañ koy santee sëñ Basiiru mi nga xamante ni sëriñ Touba moom la daan yabal muy nemmiku ci bërëb bi ba bañ koo gisee mu dundal ko ba lii yëpp mën fee am tey waaye sëriñ Moustapha mi nga xamante ni moo ko wuutu woon yeggale liggéey bi ba tey sëriñ Muntaxa jot ci sëriñ Muntaxa moomu nag ñun ñii ñëpp amal nañ ko njukkal ndax dafa am dénkaane bu mag boo xamante ni sëriñ bi moo ko dénkaane woon te bu ñu demee ci njàngalem sëriñ Mbàkke Bousso dinañ ko fa fekk muy université bi nga xamante ni war nañ ko daloo ci fan yu néew te lool yi sëriñ Muntaxa sumb yeggaleel ko maamam ndénkaane la woon waaye mébét ak yéene sëriñ Touba la woon kon foofu sëriñ Muntaxa nekk taxawal diine di ko liggéeyal te waxaloon boppam ni li tax muy sant son excellence monsieur le président de la république Macky Sall mooy da ko dimbali ci diineem jàppale ko ci te loolu neex naa dégg neex naa xam mënees na koo ràññee ndax li ko waral fii ci Porokhane buñ ko seetloo ci ñaari at yi weesu li fi son excellence monsieur le président de la république Macky Sall def ku ne teg na ci bët bokk na ci ñetti forage yu mu fi def bokk na ci kilomètre tali bu mu fi def boolewuñ ci piste yi bokk na ci résidence bi nga xamante ni ñoo ngi koy def bokk na ci centre de formation professionnelle yi waaye bokk na ci cinq postes de secteur yoo xam ne électricité la quatre cent cinquante lampadaires LED ak ay téeméeri téeméeri téeméeri branchements sociaux loolu nag li muy wane mooy yitte solo ci président de la république son excellence Macky Sall jox diine kër diine goo dem mën ngaa teg sa loxo gis sa bët lam fa def lii biñ ko dëgmalee muy màggalu poroxaan gi daf ñoo jox ndigal ni ñu na ngeen ànd ak mbooleemi service gouvernement bi taxawu ko ba lépp mucc ayib moo tax ci wàllu courant yokk nañ ko wàllu ndox yokk nañ ko wàllu hygiène ak assainissement lépp luñ ci waroon taxawee def nañ ko ci fi may daaneele sëriñ bi mooy jottali yóbbante son excellence monsieur le président de la république Macky Sall xam na ni naka jekk ma nga ca waaye di ñaan sëriñ Muntaxa gën a ñaan ci dëkk bi yàlla gën fi dolli sutura gën fi dolli xéewal gën fi dolli jàmm wasalaamualeykum wa rahmatullah wa barakatuhu te am cano bu rëy nag ci lislaam ñaan suñu borom suñu borom yàggal ko fi dolli ko dolli ko tal ma ànd ak moom tey di jëkki bokki taalibe yi yi nga xam ne ñooy lépp ginnaaw yàlla ndax seen bu daje moo waral bis bi moo wàcc bis bi kon ñoom la ñu yëkkati leen xamal si leen sunu leen cantuk sëriñ bi ak ko ngërëm bu baax a baax xam ne gis na seen jëf yëg la ndax xam na ne boole ngeen seen xel ak seen xol ak seen ji seen am def ko ci bis bi ngeen bëgg rek dara ñu ci wala lu jëm di sant leen jàmm gën a jëm kanam bu baax a di sant suñu borom suñu mbokk yi suñu suñu mbokk yi ñooy suñu mbokk yi bopp di yóbboot ko Serigne Touba moo xam ci gañoo la moo xam ci bàyyi la ñoom ñëpp Serigne Ba ngi leen di sant gisal seen ji rek gisal seen taxawaay ñaan bu gën a yàgg tamit doole ko da ci suñu mbokk yi ak kër gu ñu mën a bàyyi ko te rek mu ñam bokk. te nu bokk Rasulullah bàyyi ko ci Yàlla ñoo ngi leen sant bu baax a baax te xam ne seen tax gis naa seen gis naa ko waaye mu leen a baax ñaan yàlla suñu moom mi fi indi moo delloo leen ak jàmm ak dellu si bu ëpp ngeen indi ko ci xéewal ci kanam dañ na ko ñu ko wér-wér noo ngi leen nuyu baax Dakar a ngi baax a baax ah di ñaan nag suñu borom suñu daje leer na nañ mbakke xol yi sedd na xel yi dal na su ko defee leeral sa euh, euh, monsieur le ministre bi muy ñëw basiiru Kébé dafay conseil ci président la république di ko baax moom it di doomi Saalum ànd na ci délégation bi léegi nag ñëpp tàllal Cheikh Madou Cheikh Madou ne na ñëpp tàllal ci kanam Serigne Fallou nag mu ñaan monsieur le ministre tàllal yaag délégation bi nga àndal yëpp te fasal président de la république ne sëriñ bi ne ñoom ñii kat laata ñoo ñëw am na ndaw yu ñu fi jëkk yónni am na lu ñu fi sémb sémb wi weesu na ren weesu na daaw ña nga ca nag di liggéey ne yëggagul nag fañ ko jëmee waaye alhamdulilahi rabbil alamina monsieur le ministre sëriñ bi ne seeni doxin gaaw na ne na yëgg ak jàmm ne bu yëggee jàmm sëriñ Basiiru mii dana ci wax ak yéen jërë ngeen jëf na ñëpp tàllal amin Mbakke amin yàlla na ko ànd ak yéen ba mu yegg ak jàmm amin amin Mbakke